ok alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñi ngi war a jël tey ay 77 ci suratul maida suñu borom di waxee ni qul ya ahlal kitab la taghlu fi diinikum ñu ngi yeesalaat sant suñu borom jalla wa ala ci xéewalam yi nga xam ni ñu ngi wéy di ci dund ca mooy xéewalu lii di chahru ramadan nga xam ni am nañ ñi ngi nekk tey suñu fukkeel ak juróom-ñeent ci li ñu ciy woor mu it suñu fukkeelu daje ak juróom-ñeent ci téere bu tedd bi ñuy daje ci néegu bi yàlla bi suñu yonent sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bégle julit ñi ci xéewal ya nekk ca loolu ca lu bari ngeen yàgg koo dégg xanaa li ñuy ñaan rek mooy suñu boroom jalla wa ala mi ñu dëppale ci jëf bi yàlla nañu wërsëgal yéena bu sell tam nangul ñu ko mboolem ña koy dégg it ak fu ñu mën a nekk ci kaw suuf yàlla na yàlla subhanahu wa taala boole ñu ak ñoom ca yool boobee ñu dox suñu digganteeg ñoom it di leen ko jottali suñu borom yàlla fay leen ak képp koo xam ne nii it dana leen jàppale ñoom it nga doon sidi aju ci jàkka ji la wala suñu télévision bi di Islam TV ala kulli xaal kon incha allah comme niñ ko waxee rek su dee Cheikh Ousmane pare na mu jëloon ñu suñu bind bu njëkk.
أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواءكم ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون
بارك الله فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سني بروم مني قل يا أهل الكتاب أين نجتون تيري بي يهودي نصراني لا تغلو في دينكم بولين جيجي دايو تي سين دين واي غير الحق باتي وخ ولا دف لو سفانو دغ ولا تتبعوا أهواء قوم بولين توب مكو بانيخو خيت بو خمني قد ضلوا من قبل ñoom réeroon nañ lu jiitu wa adallu kasira réeral nañ ñu bari wa dallu an sawaa'i sabil ci réere nañu it la digg doomu ca yoon wa lu'ina allazina kafaru min bani israil rëbb nañu ña weddi ci bani israil ala lisaani daawuda wa isa bni maryam ci lammiñu yonent yàlla daawud ak isa doomi maryam zalika bima asaw wa kaanu yactaduun li waral loolu mooy lañ mayoon nekkoon di ca jéggi dayoo kaanu laa yatanaahawna an munkarin faaluuhu nekkoon nañ daaw ñu terante ci benn lu bon lenn lu bon luñ defoon la bisa ma kaanu yafaaluun aka bon waayi lañ nekkoon di ko jëf tara kathiran minhum yatawallawna lazina kafaru da ngay gis la bëri ci ñoom dem di farandoog yéefér ya la bisa ma qaddamat lahum anfusuhum aka bon la nga xam ne jiital na ko ñel leen seen bakkan ya an saxita allahu alayhim ca mooy yàlla mere jëm ci ñoom wa fi lazabi hum xaalidun ca ñoom day ca mbëgulum yàlla ca la ñuy sax ba faw mi ngi noonu mbokk julit suñu boroom day woo ahlul kitaab ne leen bu leen jéggi dayoo ci seen diine ca it bañ cee wax lu dul dëgg mbokk ahlul kitaab bokk na luñ jéggi dayoo ci seen diine mooy sosal nañ yàlla doom subhanahu wa ma yaquluun yahud ya nee nañ uzayru doomi yàlla la nasaraan ya nee nañ doomi yàlla la sosal nañ yàlla ni lan tamassana naaru illa ayyaama maaduda sawara duñu laal lu dul bis yi néew rek ak luñ mën a def ak yeneen yu ñu sos waaye mbokk loolu bu ñu ko yàlla di nettali pour lan la mooy ngiree ñoo góor góorlu bañ a jaar fiñ jaar te mooy bañ a jéggi dayo ñu leen suñuy diine loolu moo tax ba suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam doon ñu wax ne laa taturuni kama atrati nasara ibnu maryam fa innama ana abd fa qulu abdullahi wa rasulu bu leen ma tagg mukk yëkkati ma ni chrétiens yi def isa man jaam rekk la da leen wax jaamu yàlla yonent yàlla bi ngeen di taaye léegi loolu ngeen wax wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulu seede naa ne muhammad jaamu yàlla la yonent yàlla la waaye mbokk yonent boobu it waxoon nañu ne da ngeen jaar fa yahudi ak nasaraan yi jaar ba bu ngeen leen gisoon ñu dugg ci paxi mbë ay paxi mbëtt da ngeen dem ut yee nit paxi mbëtt yu ngeen dugg looloo tax moom ci boppam am na ñu bari ñu jóg ne yonent bi yàlla bi yàlla ci leeram la ko binde ñun ñépp yàlla nga ñuy binde ci leerug yonent bi bu dul woon ak yonent bi yàlla du ñu bind mbokk loolu la ñu wax te yonent boobu yàlla waxloo ko ne ko waxal leen qul innama ana basharun mislukum man nit laa rek comme yéen yonent bi ne man doomu aadama la ana xayru waladi aadama wala faxar ma nekk sangu doomu aadama yi loole puukure taxul ma wax ko waaye ngir ngeen xam ne nit laa rek comme yéen gannaaw ba suñu borom mu ne bind ma nit ak jinne lu dul ñu jaamu ma ñu ne muhammad moo tax ñu bind ko naam kay xadis mawdu yoo xam ne dañ koo sos yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne xamul kumpa inni la alamul xayb yàlla waxloo ko aay yu bëri waaja tagg ko ne ko wa min ilmihi ilma allawhi wal xalam wal xalam ci xam-xamu yonent bi ca lay ca lañ jële xam-xam nekk ci laxwil mahfuus ak xalima bay binde mbokk loolu jégg day mënta passé loolu loolu ñu bàyyi ci xel ba baax même boo juddoo fekk maam yi di ko waxit fexeel ba bul dugg ci loolu ci loolu it lañ jëlee jaami yàlla yi créé ci ay xutba ba tax yaa ngi dégg xutbu zaman ndax xam ngeen lu xutbu xutbu ñu ne mooy ki dox diggante nit ñi ak yàlla mboole mi jaami yàlla yi jëm ci yàlla ci xutbu bi lay jaar mboole mi xiiwal yu jóge ci yàlla jëm ci jaam yi ci xutbu bi lay jaar kii koy muy petit yàlla rek am déet gis ngeen loolu suñuy wax la créé fi lu ñuy tudde ay cheikh ba tax gaa yi xam ngeen cheikh waay benn waay mu ne bàyyi leen ko jóg ngeen ne cheikh nga noonu rajo inter Dakar yëpp lañ ko doon transmettre daje bu rëy bàyyi ni ko jóg ngeen ne cheikh koo xam ne mënuloo sa taalibe fu muy sukkuraatu ci àdduna nga dem teewe ko bu dee nga gungu ruux gi ngeen dugg bàmmeel ba malaaka yi ñëwee nga tontu malaaka yi ëllëg nga téye ci loxoom jéggal ko siraat tabbal ko àjjana kenn wuru la wax cheikh bàyyi leen ko jóg rek ngeen cheikhal ko ngeen noonu ñu ne cheikh ñu ne dëgg-dëgg nit ki mën ngaa toog di gis sonk la ñuy dox ca aras te yegg goo ci gratu cheikh loolu bokk suñuy wax la créé nañu ay azkar yoo xam ne nee nañ koo xam ne jël na ko yow doo lakk sa doom du lakk su sët du lakk ba juróom-ñaari sët koo may jabar du lakk ku la may jabar du lakk déggu leen loolu waaye waa li neex na ba dee de waaye mbokk loolu lañ koo sos loolu mooy alxulu loolu it mbokk jullit dañuy gis ne suñu borom subhanahu wa taala mu ne bu leen waxal yàlla lu dul dëgg bu leen topp xeeti seen maam yoo xam ne dañoo réeroon ngeen fekk leen ci réer gi topp leen ci réer googee te loolu mbokk mooy li ëpp ci doomu aadama li leen alal ah lii kat dañoo fekkoon maam yi ci la ñu nekkoon sama bàyyi ci lii la doon dund waaye lii yàgg nañ koo dégg waay lii nangam waaye déedéet mbokk jullit loolu du base ci diine suñu borom mu ne nag ñii di bani israil yonent yàlla daawud rëbboon na leen yonent yàlla isa rëbboon na leen te mooy bañ demee ba découragé ci ñoom te yonent yàlla Moussa it jàng nañ ci gannaaw fafruq baynana wa bayna alqawmi alfasiqin yàlla yàlla nag ma teqale xeetu kàccoor yi dégg nga daawud alayhi salaam nekkoon na yonent nekkoon buur looloo tax bani israil lu ne tuumaal nañ ko ko lu ne tuumaal nañ ko ko yonent yàlla isa yéen ñëpp xam ngeen lan la ko yahudi yi teeroo doomi njaaloo nga gis nga doomi njaaloo nga loolee taxoon na ba isa rëbb leen comme na leen daawud rëbbe borom bi ne li waral li mooy dañoo moyoon yàlla ah sow la leen yàlla digaloon mooy nañ ko def ñu digal ya bàyyiwuñ tere ya wa kaanu yaxtaduun jiggi woon nañ dayo ci jaami yàlla yi jiggi dayo ci seen diine lii lépp mbokk bu ñu ko yàlla wax mooy ngiree ñu moytu jaar fan jaaroon borom bi nag ne bokk na musiba bi gën a bon lan daan def ci bon kenn daawul tere kenn lu bon te loolu mbokk mooy société bu yàqu société bu alku mooy di yegg ba kenn dootul tere lu bon suñu yonent sallallahu alayhi wasallam nee na su boobaa mbugal bi buy ñëw ñëpp lay boole Abubakar Siddiq taxaw na ca minbaram ba mu ne ay yéen nit ñi bu mu leen nax mukk aaya bi yàlla di wax alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum lijjanti leen seen bopp ki réer du leen lor su ngeen jubee doomu aadama du jub lu dul dafa diglu lu baax tere lu bon iza htadaytum mooy yéen a ngi déglu lu baax di tere lu bon keneen ku réer seen yoon nekkul ci moom waaye société bi buñ dégluwul baax buñ diglante lu baax tere lu bon ñun ñépp ñoo bokk la nga xamee ne nii moom mooy musiba boobee donte ne nii déglu lu baax ak terante lu bon it dafa may charte yoo xam ne yuñ koy war a defee yonente bi sallallahu alayhi wasallam mu ne kenn ceen bu gisee lu bon ca man koo dindeeg loxoom na ko dindeeg loxoom su dee mënu ko na ca wax su ca mënul nag mu naqari ko ci xolam ca it mu ngi noonu fexe it ba day dindi lu bon ba ne dindi lu bon luy jur lu gën a bon lépp loo xam ne soo dogoon ne da nga koy dindi tey mu jur lu gën a bon dañ naan bàyyil noonu moo tax suñu borom mu ne ah xërëm yi ñuy jaamu bu leen leen rëbb ndax bu ngeen saaga seen yàlla yi ñoom it ñu saaga yàlla wala tasubbu lazina yad'una min dunillah fa yasubbu allah adwan adwan adwan bi xeyri ilm bu leen leen rëbb na kon dañuy rëbb yàlla loolu it kon ñu bàyyi ci xel bu baax heure boo gisee lu bon la ngay war a jëkk a xalaat ban kattan laa am ci lii ci dindi ko sama loxo yow borom kër gi bu dee kër gi yaa ko yilif yow borom réew mi mënoo koo ca mën a wax ba mu deñ day toll étape boo xam ne dalay naqari rek nga mën gis ngeen loolu ñu bañ koo ñu bañ a jaawale boo ko jaawale rek mën a jur fitna boo koy dindi it nga xam ne da nga ko war a dindee ci xikma mi ngi noonu convaincre que ngay teral lu bon ba mu xam ne li da ko war a bàyyi ci yàlla tax bañ koo bàyyi ngir da nga ko koo imposé borom boobu nag ne yahudi bon yooyee da ngay gis ne la ëpp ci ñoom ña ngay dem di jëkkante ci yéeféer yi di farandoog yéeféer yi ak bon luñ doon def te mbokk ci lu yàggul dara wax nañ leen ne yahud yi nekkoon xaybar dem nañ gisanteeg waa Makka ne nañ leen ànd xeex muhammad ndax menace la pour ñun ñëpp waa Makka ñu leen mais yéen yéen ak muhammad yéen a bokk li ngeen di wax da ngeen a gëm ay téere gëm alaxira ñu ne leen déedéet yéen yéen a gën a jub muhammad diine ñu ñu ne leen waaw kon dem leen sujootal suñu xërëm yi ñu dem sujootal xërëm yi moom lañ jàng ca gannaaw illa lazina utu nasibin min alkitab yu'minuna bil jibti wa taghut wa yaquluna lil lazina kafaru haula'i ahda min allazina amanu sabila waaye lu tax yàlla netti li ñu ko li tax yàlla netti li ñu ko mbokk muy jullit doo dem di farakub yéeféer ci lépp lu aju ci wàllu diineem loolee kenn du ci maslaha ak baayu yéeféer ak doomu yéeféer dëkkandoo yéeféer maadaama diine la lakum diinukum waliya diin amma lu jëm ci àdduna loolee mënees na caa masla comme ni leen ko yàgg a waxee man ngaa am ay employé chrétien employé yéeféer mën ngaa dem sax am patron chrétien patron yéeféer lu aju ci wàllu àdduna amma lu aju ci wàllu diine jullit du ci masla ak kenn kenn ku dul ka nga xam ne mooy mbokkum jullitam mi ngi noonu Cheikh Ousmane
ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون بارك الله فيكم سني برمني ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي بدون تنيدنيو غمون يالا غم يننت بدي وما أنزل إليه أغلن واتتي موم mattaxazuhum awliya duñu leen jël mukk def leen ay farandoo walakin kasira minhum fasiqun waaye li ëpp ci ñoom dañoo génnuk topp la tajidanna ashadda annaasi adawatan lillazina amanu da nga gis ñi gën a tar ci nit ñi ak noonoo ñeel ñi gëm alyahuda wallazina ashraku mooy yahudiya ak ña nga xam ne dañuy bokkaale wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lillazina amanu waaye da nga fekk ñu gën a jege cofeel ñeel ñi gëm allazina qaalu inna nasara mooy ñooñu nga xam ne dañ ne ñun day ay chrétien lañu zalika bi anna minhum qissisin ndax la waral day am na ci ñoom ay borom xam-xam yu mag wa ruhbaan ak la nga xam ne mooy ay jaamukati yàlla mooy cardinaux yoog labbe yi rek wa annahum la yastakbiruun ca ñoom day duñu réy réylu mi ngi noonu mbokk gis nañu suñu borom jël wa ala mu ni ki gëm yàlla ci gëm yonent yàlla du féetewoo mukk ak ku gëmul yàlla gëmul yonent yàlla loolu tax ba yow jullit xamal ne sa mbokk jullit mooy sa mbokk da nga ko war a bëgg ci yàlla tax mbëggeel googee mën na laa jural ajjana yonent bi alayhi salaam mu ne bokk na ne ñuy keral yowm alqiyaama rajulaani tahaaba fillah ñaar ñoo xam ne dañoo bëggante rek te yàlla tax ngëm gi nga yëg ci moom ak jëf ju baax ji rek tax nga bëgg ko mi ngi noonu borom bi subhanahu wa taala nag ne la ëpp ci ñoom dañoo doon ñoo xam ne dañoo génn topp ay faasiq day koo xam ne nii ba mu duggee ci diina ji it génn na ca ci leneen borom bi nag ne ba ba adduna tukki da nga fekk ñi gën a noonoog ñi nga xam ne ñoom ñuy jullit ñi mooy ñi ne ay yahud lañu ak ay ay ak ña nga xam ne ay bokkalekat lañu te na am bokk bokk nañu gën a bañ islaam ma yahud ndax xam nañ ni islaam ñoo leen gën a xam alquran li mu wax ci ñoom beneen téere waxu ko seen piège yeeg yépp xam nañu ko te it yonent bi sallallahu alayhi wasallam xamoon na ne kenn mënul négocier ak ñoom loolu tax ñetti giir yam nekkaloon Madina yépp da leen a génne Madina am na ñoo xam sax da leen a rey mi ngi noonu bokkaalekat yi it noonu lañ mel bokkaalekat bëggul diine mi ngi noonu ndax diine mooy ñëw ne ko yow sawara nga jëm moom gëmul àllaaxira gëmul dara borom bi nag ne ñu gën a jege cofeel ci jullit ñi mooy ñi nga xam ne dañu ay chrétien lañ waaye yan chrétien yan chrétien mi ngi noonu parce que dajeeg am na benn kilifa ci Sénégal am bi ñuy nommé kenn ci cardinaux yi nekk fii ci Dakar ñu koy feetal kilifa gu mag googee dem fa di ko tagg daan ko yow ku la gis xam ne nituk yàlla nga xam nga ku la gis nangam nangam yàlla dogal kilifa googee faatu na tey ma daje ak moom ibnu Mubaarak ak benn samay mbokk gaa yi ñëw fii mi nga doon ñu ngi koy wax Cheikh Ndiaye yàlla na yàlla dolli ko yiw mu ne ko wax góor gi yow li nga doon wax keroog ci stade bi ah waaye loolu xiir ci loolu mu ne ko wax mais yàlla moo wax ci alxuraan ne la tajidanna aqrabahum mawaddatan lillazina amanu lazina qaalu inna nasara ñi gën a jege juri ñi muy wax nasaraan mu ne ko mais yéggaleel aaya bi yaa ngi dégg ala kulli xaal ñu yéggale aaya bi la ñu ciy jëkk a wax suñu borom mu ne annahum la yastakbiru chrétiens yi yàlla lay wax ne ñoo jege jullit ñi la yastakbiru du ñu rëy rëylu lan mooy rëy yeneen ci bi alayhi salaam nee na ki rëy du dugg aljanna benn góor ak càmmee ñoo ne ko ah mais mu yàlla yónni man léegi damaa bëgg man samay yëre di rafet samay dàll di rafet mu ne ko yàlla daa rafet bëggul lu rafet waaye al kibru mooy batrul xaq wa xamtu nas rëy dëgg mooy bañ dëgg ak xeeb nit ñi su borom mu ne chrétien yooyu yàlla tagg laa yastakbiroon ñoom du ñu réy réylu ay fu ñu dégg dëgg topp ko loolu muy benn ndax ñoo kooku mu doon tagg musul dégg dëggug lislaam donte li donte li mooy axe kay loolee kon au départ bokkul ci ñoom léegi nag ñi ci des ma yeneen qualité yi leen yàlla taggee ñu xool mooy lan ak Cheikh Ousmane
فإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم بارك الله فيكم suñu borom jalla wa ala mu ne wa ida sami'u ma unzila ila rasul heure bu ñu déggee lañu wàcce jëm ca yonente ba tara ayunuhum tafiidu min ad-dama da ngay gis seen bët ya ma ngay nekk di fees di tuur rangoñ mimma arafu min alxaq ca la nga xam ne xam nañ ko ci dëgg yaquluuna rabbana amanna ñu ne ay yàlla ñun de gëm nañu faktub naa ma ash-shahidin yal nañ ñu bind boole ña ca ña nga xam ne dañuy seede muy xeetu yonente bi wa ma lana la nu'minu billah ma ñun lan moo ñuy ñeel ba duñu gëm yàlla wa ma jaa'ana min alxaq ak li nga xam ne dikkal nañu ci dëgg wa natma'u an yudxilana rabbuna ma alqawmi alsalihin te ñun dey ñi ngi bëgg suñu boroom daa di ñu mi ngi doon dugal ànd boole ñoog xeet boo baax wa xeetu ñu baax ña fa asaabahum allahu bima qaalu nii la leen yàlla faye ca lañu waxoon jannatin tajri min taxtiha al anhaar ajjana joo xam ne ma ngay daw ca suufam li di dex ya xaalidiina fiiha ñooy sax ba faw ca loole wa zalika jazaau almuhsinin ca loolu day mooy payu képp koy rafetal walladina kafaru wa kazzabu bi ayatina ña nga xam ne nag dañoo doon ñu weddi dañoo weddi yàlla ba pare fen loo ne aaya yàlla yi day du dëgg ulaika ashaabul jahim ñoo ñooy day ñooy ñoñu ñooy nar a tabbi jahim mi ngi noonu bokk suñu boroom nee na chrétien yooyu day nga xam ne ñoo gën a jege diini seen mandarga mooy heure bu ñu déggee la nga xam ne moom la ñu wàcc ci yonent yàlla bi lan la ñu wàcc ci yonent yàlla bi mooy alquranul karim heure bu ñu leen jàngalee alquran seen bët ya taa ñu daal di commencé jooy ngiree la ñu xam ci dëgg goo xam ne xam nañ ko daal di ne ay yàlla kàddu gi day gëm nañ ko yal nañ ñi boole ci ñi nga xam ne dañuy seede ëllëg te mbokk xeeti yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy seede mboole mi xeet yee ñëw yowm alqiyaama li yakuna arrasulu shahidan alaykum wa takunu shuhadaa ala nnas xeeti yonent bi ñooy seede xeet yépp ne seen yonent jottali woon nañu leen la yàlla bëgg lii mbokk kon dañuy gis mooy buñ ci jëlee benn échantillon ci chrétien yooyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa nekk ca Makka jullit ñi ñu leen di lor lor yu jéggi dayoo gannaaw ba mu ne dégg naa day ci Éthiopie buur boo xam ne kenn du tooñ kenn ci moom dem leen ngeen gàddaay foofu ngir ngeen sàmm fa seen diine jullit ñu bari dem bokkoon na ca ñi ca gënoon a tedd kii nga xam ne mooy Jaafar ibnu abi talib ñu dem bi ñuy demee waa Makka def benn délégation daal di dem booba Omar ibnul As tuubagul moo ko jiite woon ñu yóbbu ay cadeau ci Najashi te it yéen ndaw ñi ngeen xam ne Éthiopie gi empire la woon d'ailleurs daanaka moom kenn mësu ko colonisé ñu colonisé Afrique yëpp kenn mësu ko colonisé Éthiopie empire la woon buy méngoog empire jamono joojee di Faris ak Rome mi ngi noonu ñoom ñoo commandé woon ba yaman ñu doon bëgg a toj si kaaba gi ci kilifteefu buuru Éthiopie la nekkoon ba ñu jógee foofu ne dañu toj kaaba gi loolu beneen mbir la ala kulli xaal ñu ñëw ci ci ci Najaasi ne ko dafa am ñu dawee suñu dëkk ñoom dañoo weddi suñu diine weddi seen diine yow mii te ñu ngi làqatu si dëkk bi dañoo bëgg nga delloo ñu leen najaasi ne leen ha ñu ndaw mu ne garde yi dem neen seetal ma leen ñu dem dajale leen ñu ñëw indi bi ñëwee ci pale bi garde yi ne leen sujjuut leen booba kuy dem ci najaasi da ngay sujjuut ñu ne ñun du ñu sujjuutal ku dul yàlla nga noonu yow ndawal jullitil xamal loolu foo dem yóbbu fa sa diini gaa yi bëgg leen di indil jafe-jafe najaasi ne bàyyi leen leen biñ ñëwee ci najaasi najaasi posé leen ay question gannaaw ba laaj leen oo yéen luy seen mbir ñu ne ko ñun day ay ceddo lañu woon daan jaamu ay xërëm di lekk mbënd njaaloog reyante ak naan sàngara du dara ci ñun yaa ngi dégg ki ëpp doole sa moroom jël alalam yàlla génne ci ñun benn yonent ñu xam ko xam cosaanam xam dëggoom mu woo ñu ci ne nañ wéetal yàlla woo ñu ci nañ bëggante jàppante woo ñu ne ne àjjana moo ñuy xaar Najaasi ne leen ah mu ne waaw mu ne ko waaw kooku li muy wax ay ndax am ngeen ci dara lu ngeen yor Jaafar ne ko ah kay mu ne ko taril ma ma dégg Jaafar ubbil ko suratu Maryam di ngeen woon suratu Maryam kaaf ha ya ayn saad di jàng Najaasi ak labbe yi ko wuroon yépp sëgg muy jàng di jàng ñu ànd di jooy ba Jaafar pare bi ñu paree najaasi wàcc trône bi mu toogoon gis benn bant bu sew ci suuf mu yëkkati ko ne wallahi wax ji ñu dégg ak la Isa doon wax différence bu toll nii sax amu ci ñun day gëm nañu wax ci mboolem ña fa nekkoon nga xam ne ñooy borom xam-xamu yahudi xam ne lii lañ doon xaar lii la Isa waxoon maa ngi ñëw mu mubashiran bi rasulin yaati min baadi ismuhu ahmad léegi mi ngi noonu mu ne ñoom Omar ibnul As dellu leen su ngeen indi woon àdduna ak li ci biiram du tax ma jox leen nii mbokk ñii chrétiens yi la yàlla di tagg looloo tax keroog najaashi ba mu faatoo yonente bi alayhi salaam ne saxaaba yi yàlla xamal na ma ne jaam bu baax bu duggoon ci lislaam nga xam ne nii mooy buuru Éthiopie de najaashi faatu na kaay leen ñu jullee ko génn ak yonent bi ci musalla bi yonent bi taxaw ñu jullee ko salaatul ghaib najaashi lañ ko jëkk a defal ci lislaam gis ngeen loolee kon mbokk la ñuy wane ni mooy chrétien yi nga xam ne dañoo sincère ca rëy rëyluwuñu fu ñu dégg diine lislaam dugg ci waaye koo xam ne yaa ngi dégg alquran sa yéen nekku ci féttarlu bokkoo ci ñi yàllay wax abadan na am soo demee tey jii li ëpp luy dugg en occident ci l'islam ñu ngi jóge ci christianisme duñ jóge ci yahud yu bon yooyee waaye li li nga xam ne mun la borom bi wax ñu teg ci ne ñun lan moo ñu ñeel ba duñu gëm yàlla ak dëgg gi nga xam ne dikkal nañu te ñu ngi bëgg yàlla ëllëg boole ñoo gaa yu baax ya bokk na li nga ciy jëkk a dégge mbokk suñu borom nee ne biñ déggee alquran seen bët yi dafa taarangoon ñuy jooy su ko defee yépp ñu bàyyi xel léeg-léeg nga gis ñoo xam ne dañ naa ci diine lañ nekk ñu leen ak waa dégg ko waraatu yuuxu am ñoo xam ne ni sax ba mbëkki miir yi mbokk loolu jógewul ci yàlla de ñu jógewul ci yàlla de Abdoulaye ibnu Zubayr ba mu ñëwee ci yaayam naan ko asma naan ko maarom bu fële gaa yu baax bi ñu jàngal xuraan ñu ngi yuuxu mu ne ko sama dem ci seytaane la jóge de yonent bi alayhi salaam bu daan jàngal saxaaba yi alxuraan day mel ne ay picc ñoo tag seen kaw seen rangoon yi rek mooy tuuru loolu ñu bàyyi ci xel bu baax it mooy léeg-léeg doomu aadama mën ngaa doyeeti waaye xam nga ne xamal ne gënul soo nekk ci jàkka ji dégg ñu jàngal Qur'an di jooy jàkka ji yépp di la dégg mbokk loolu gënul de loolu gënul de sa jooy daa war a yem ci tuur ay rangoon mi ngi noonu tuur ay rangoon muy wane sa xol mi ngi dund képp koo xam ne alxuraan du la jooyloo it na nga xam ne mbokk ba tey war ngay réviser sa bopp yaa ngi dégg loolu ñu bàyyi ci xel bu baax jooy day nekk mandarga ko xolam di dund ba tax yonent bi alei salaam mu ne wa rajulun zakara allaha xaaliyan fa faadat ay naa bokk na ñu ñuy karal yowm alqiyaama koo xam ne dafa wéet di xalaat digganteem ak boroomam mu néew ci nit ñi ñu koy def tey gan la waay di leen wéet ak yàlla yan ndawal julit ñi daaw ak daaw jeeg am na benn vidéo bu bëri ñu ko doon tasaare ci seen groupe yi ñu tudda ko isole-toi isole-toi ay yow dawal julit léeg-léeg delluwee toog di xalaat sa tey sa ëllëg sa heure booy dajee ak sa borom su ma duggee bàmmeel di xalaat ci loolu heure booy xalaat ci loolu ba sa rangoon tuuru mbokk loolu mën na laa jural ajjana yal na yàlla yombal ci ñun ajjana loolee kon ñu bàyyi ci xel ñu ne ñu ngi bëgg yàlla boole ñu gaa yu baax ya te loolu ngay ñaan guddeeg bëccëg ihdina siraatal mustaqim siraatal lazina an'amta alayhim ña ca gën a néew daraja mooy as-salihin wa gannaaw ba shuhada gannaaw ba siddiqin ñi leen tiim ñëpp nag mooy annabiyin mi ngi noonu borom bi nee na wax jooju ñu wax rek ca la leen yàlla fay àjjana ci gis ngeen mbokk jullit sëñ borom mu ne li ñu li ñu wax ca laa leen fay àjjana yonent bi alayhi salaam nee na benn waay dana wax benn wax jàppul na wax bi am na importance yàlla gërëm ko ci tàbbal ko àjjana ba faw benn waay dana wax benn wax jàppul na la mu wax sax na garaaw na jàppul la wax garaaw na de yàlla mere ko ci tabbal ko sawara ba faw te loolu mbokk da ngay gis ne ak bëri tey suñu suñu waxin yi ñuy wax ci ci diine ji jël ay nit teg leen place yàlla wax joo xam ne yow yaa ngi koy wax rek ngiree doomu aadama yi fonk la ngiree animé jataay bi fekk yàlla mere na la ci ba ila yawmi din loolee ñu bàyyi ci xel bu baax mooy bi ma xaalu ajjana joo xam ne ma ngay daw ci suufam ay dex ajjana mooy lan mooy loo xam ne bët mësul gis lu mel ne moom nopp mësul dégg lu mel ne moom kenn mënul imaginer xalaat ba xalaat àdduna àjjana nu mu rafet ak nu mu neexe xanaa dem gis rek yal na yàlla boole ñu ca borom boobu subhanahu wa taala nag mu ne lii mooy payu ñay rafetal ndax lii mooy payu chrétiens yi wax loolu la wallah lii mooy payu koy rafetal kan mooy koy rafetal ba ila yawmi diin chinois nga joolaa nga kum mën a doon kan lan mooy rafetal mooy ñi nga xam ne seen digganteeg seen diine boroom rafetal nañ ko jaamu nañ yàlla bokkaale wuñ ko ngir dara la ñuy def yàlla tax seen digganteeg jaami yàlla it rafetal nañ ko xatta bàyyi may rafetal nañ jëm ci ñoom ñi mooy almuhsinin borom boobu subhanahu wa taala nag ne seen contraire mooy ñi nga xam ne ba ñu déggee aaya yàlla yi dañ koy weddi yahud lañu chrétien lañu athée lañu lu mu mën a doon ña nga xam ne dañoo ne gëmuñu alquran ñooñu ñooy asxaabu naar ak lu ñu mën a tudde seen bopp képp ku weddi alquran asxaabu naar nga bokk ak noo mën a tudde sa bopp mi ngi noonu Cheikh Ousmane
يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون بارك الله فيكم سنبر مني يا أيها الذين آمنوا ey yéen ñi nga xam ne da ngeen a gëm laa tuxarrimu tayibaati ma axalla allahu lakum bu leen araamal yi teey yi yàlla daganal ñel leen wala taatadu waaye it bu leen jéggi dayoo inna allaha la yuhibu almuctadin yàlla bëggul kenn kuy jéggi dayoo wa kulu mimma razaqakum allah lekk leen ci li leen yàlla wërsëgal xalaalan loo xam ne nii lu dagana lekk la tayiban lu teey la ay na ngeen def ba jot ko jotin bu teey la bu baax la wattaqullah ci ngeen ragal yàlla allazi antum bihi mu'minun yàlla moom nga xam ne yéen moom ngeen gëm laa yuaaxizukum allahu billaxwi fi aymaanikum yàlla day du leen jàppee ci lenn loo xam ne ay puukare la rek ci seeni wax walakin yuaaxizukum bima aqadtumul aymaan waaye dañu leen jàppe ca la ngeen fas def ko muy waat gu ngeen géñe fa kafaratuhu itaamu ashrati masakin la nga xam ne nag moo koy kafaara ba la ngeen ne woon du ma ko def ngeen mën koo def moom mooy ngeen leel fukki miskin min awsati ma tut'imuuna ahlikum ca la gën a diggu dóoma la ngeen di leel seenu njaboot aw kiswatuhum wala ngeen woddu leen aw tahriru raqaba wala ngeen goreel jaam fa man lam yajid ku amul ci ñett yi dara fa siyaamu thalathati ayyaam kon na woor ñetti fan zalika kafaratu aymaanikum lii day mooy far ah waat yi ngeen waatoon ida xalaftum heure bu ngeen giñee ci ne dañuy def nangam waxfazu aymaanakum e waay wattu leen la nga xam ne mooy waat yi ngeen waatoon kazalika yubayinu allahu lakum ayaati nii la yàlla di leera la ñeel leen ay aayaam laallakum tashkurun ngirey ngeen doon ñoo xam ne ñuy sant ngeen di doon mi ngi noonu mbokk suñu boroom dañuy woo ci tur bi gën a tedd yéen ñi gëm heure boo ko déggee xamal ne la ca gannaaw dafay doolil ngëm ñàkk koo def day na saxal ngëm suñu borom mu ne ngallawaay bu leen araamal yi teey yi ma daganal ñeel leen te bu leen jéggi dayoo te loolu it mbokk julit diine yi ñu jiitu woon daf ci am ñu bari ñoo xam ne dañoo xañoon seen bopp bànneexu àdduna bokkoon na ñi ci mujjoon muy la- muy li ñu tuddee labbaay labbe yi mooy na nga xam ne ni dañ daan beru ci seen àll yi duñu nangoo lekk lu baax duñu nangoo sol lu baax muy arrahbaniya suñu borom mu ne ñoo ko sos sant ma leen ko da ngay gis ci diine ji it ñoo xam ne dañuy tudde seen bopp ay suufi dëddu àdduna complètement lépp luy bànneex ñëwoon ko gannaaw mbokk loolu njuumte la njuumte la boo xam ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te jamonoom am na ñu ko bëggoon a def ñetti saxaaba ñëw nañ ci yaay Aïcha laaj ko da ko wax yonent yàlla bi moom lu muy dunde ci këram Aïcha wax leen li muy dunde ci këram mooy dund ko simple la doon dund day nekk ak ay soxnaam mi ngi noonu day def ni nit ñi def boo guddi jotee dana taxaw naa fii la ila axiri ñoom ñu mel ne ñu ko xeeb après ñu ne ah déedéet moom yàlla da koo jéggal mboole bi bakkaaram ñun mënuñu koo nuru nuru lu ci loolu am ku ne man day bis na ki tey nelaw guddi moom danaa ko dagg sama bopp danaa ko xañ sama bopp dootu ma nelaw guddi ba ma dajeek sama borom mi ngi noonu keneen ki ne man day bis ni ki tey danaa dëddu samay soxna nekk ab labbe bànneexu sëy danaa ko sacrifier ci yàlla tax keneen ki ci ñoom ne ba baa may dajeek sama borom dootuma lekkati bëccëg danaa yéene woor ba baa may dajeek sama borom loolu bi yonent bi alayhi salaam ñoo ñu nettali ko ko yonent bi yemul ci woo leen wax ak ñoom waaye daa dem ca koo minbar ba saxaaba yépp di ko dégg mu ne dégg naa ci yéen ñu naan ñun day dootuñu nelaw guddi ah man day may ki yàlla yónni maa leen gën a xam yàlla maa leen gën a ragal yàlla waaye damay taxaw di naafila waaye damay nelaw de dégg naa ci yéen ñu naan dootuñu ànd ak seeni soxna dañ koy jaamoo yàlla maa leen gën a xam yàlla maa leen gën a ragal yàlla damay ànd ak samay soxna de dégg naa ci yéen ñu naan dootuñu dog koor ba ñuy dajeeg seen borom maa leen gën a xam yàlla maa leen gën a ragal yàlla damay wóor am bis yoo xam ne it dama koy dog loolee mu ne wa man raxiba an sunnati fa laysa minni ku dem ba xeeb suma sunna bokkutoo ci man looloo tax ba mbokk julit li yàlla subhanahu wa taala daganal julit du ko araamal yàlla dagal nañu takk soxna demal takk ay soxna mi ngi noonu doo jàpp ne da ngaa sell ba doo takk soxna comme erreur bu grave bi nga xam ne chrétiens yi def nañ ko mooy labbe yi jàpp ne da ngay boo ci boo duggee doo sëyati sër yi ñu ne leen du ngeen sëy xañ nañ leen lu rëy rëy rëy rëy mi nga noonu mi nga noonu fàttali sama mbokk ba laa ji Fajur Gueye li ma leen di wax toujours daal dajeeg benn sër mu ne ko kaay soxna si kaay dugg ci lislaam ma takk la gis nga ñii dañ laa nax xañ nañ ne li gën a rëy ci gën a rëy ci àdduna ci àllaaxira dañ kii ala kulli xaal mbokk loolu njuumte la jullit moom day gëm ne sëy jaamu yàlla la am déet say jaamu yàlla la yonent bi alayhi salaam mu ne am na ci fi buddi ahadikum sadaqa kenn ci yéen ci cëram am na ci sarax ñu ne ko mais yow mi yàlla yónni am bànneex am tuyaaba mu ne waaw bu ko defoon fu xaram lu muy doon du du bàkkaar kon loolu mi ngi noonu sëy bu ko da bu ko araamal sa bopp sëy jaamu yàlla la ñaareel ba yu neex yi mais yàlla taxi jullit ñee tax yàlla bind ko suñu borom mu ne hiya lillazina amanu fi lxayaati dunia xaalisatan yowma alqiyama mboolem lu neex ci kaw suuf jullit ñee tax yàlla bind ko yéeféer yi kay ñoo ñëw xaaraan leen ba ëpp leen xam ngeen xaaraan ko du caay meen la muy def ca bool bu borom kër du ko ca def waaw yéeféer yi ñoo ñëw xaaraan leen ba ëppale leen ci waaye mbokk jullit lii nga xam ne mooy mboolemi fruit yi ganaar yeeg ensuñ jàmm lépp loo xam ne nii lu neex la rek yàlla mu ne jullit ñee ko moom kon lekk ci sant ci yàlla yonent bi alayhi salaam mu ne ki jël xéewalu yàlla lekk ci yëkkeewalu yàlla ba pare ne alhamdulillah dana am tuyaa ba ñu tol nekk yendoo koor doon woor kon bu leen bu leen aramal li yàlla subhanahu wa taala daganal ci yéen li ci nekk kay mooy wala taatadu wala taatadu ay fexe leen ba li nga xam ne nii da ngeen koy lekk na doon loo xamee ne nii benn day dagan bul dem mukk ba lekk lu xaraam ca loolu lu néew a néew a néew la mbokk yi yàlla xaraamal mën nga ko lim ci say baaraam ay nit yi yàlla xaraamal mën nga ko lim say baaraam mooy li nga xam ne mooy medd yi mbaam xoox yi deret yi ak bon yi très rare loo xam ne xëy na nit ku normal sax du ko def mooy su moroomu nit ak yu demee noonu lu néew la waaye gannaaw lu yàlla dagal na la lépp la ca des nag mooy lu tey mooy la ngay lekk nanga ko moom wala ka ko moom jox la ndigal bul jël alali jaambur di ko lekk bul jël loo xam ne fa nga ko jële teeyu carte nga gañe ca la nga cay lekk baaxul sàcc nga la nga cay lekk baaxul ñoom lan nga la nga cay lekk baaxul fokk mu nekk xalaalam tayiba su boobaa ragal leen yàlla bi leen yàlla moom mi ngeen gëm lii mbokk da ngay gis ni moom la ñu suñu borom yàlla subhanahu wa taala wax donte ne ni doomu aadama bi war naa moytu it lépp loo xam ne da koy lor mu bañ koo lekk mi ngi noonu ba borom xam-xam yi sax dañuy wax naan kii nga xam ne day lekk lekk lu bare bare bare bare ba mu fatt ko loolu mu def dafa xaram bépp lekk boo xam dem nga ba jigg ci dara xam ne lii mën na laa lor dafa xaram te it mbokk am na ñu lekk ba dee de mi ngi noonu wallahi am na ñu lekk ba lekk gi fatt leen ñu yóbbu leen hôpital ñu dee gis ngeen loolu mi ngi noonu ala kulli xaal suñu borom yàlla subhanahu wa taala mu ne duma leen jàppee ci la nga xam ne ay puukare la rek ci ay wax ci ay waat kii wax naan ah billaay nangam wallaay nangam fekk yow jubluwoo ci waat loolu yàlla du la ko jàppee bokk na ñu tudd larwul xadiis it borom xam-xam yi ne kii waat fekk dafa juum moom bi muy waat jàpp ne ne li may wax man dëgg la mais dafa juum mi ngi noonu dafa jaawale kooku yàlla du ko ko jàppe la ngeen yàlla di jàppe mu ne la ngeen di fas de lii waat la loolee moom yàlla da leen koy toppe waat nga ne ne du ma defati nangam yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na heure boo waatee ne du ma def nangam ngan la waay loolee bu dee lu bon la ba ko su dee lu baax la kafaaraal sa ngeñ ca def ko boo waatee ne du ma danaa def nangam bu dee lu baax li mu ngi doon defal bu dee lu bon bu ko def léegi loolu suñu borom yàlla di xéewal goo xam ne moom la ñuy defal yàlla bu ne woon képp koo xam ne waat na ci yàlla lam waat si fini ba ko kon doomu aadama mbiri dañ am problème ak bëri kuy waat ne dootul jël soxnaam ak bëri kuy waat ne kër diw dootuma fa teg sama tànk ak diw bëri kuy waat ne danaa def nangam fekk ne loolee dem na ba gis ne def ko lor la koy jur suñu borom may ñu ouverture may ñu ab ginnuwaay te may nañ kafaara kafaara boobu mooy lan suñu borom yàlla mu ne na nga wut fukki miskin nga may leen ñu lekk ci la ngeen di lekk masalan tey Dakar lu ci bëri ceeb la ñuy lekk otel fukki miskin ku ne nga may ko lu mu lekk soo leen woowoon ñu ñëw nga may leen ñu ndékki leen nga leen may ngi leen ñu añ leen nga leen may ngi leen ñu reer leen nga leen boo leen woon ku nekk nga jox ko culub ceeb leen nga leen loolu it suñu borom yàlla dafa insisté ci fukk yi ba nga xamee ni fukk fukki miskin lay doon lu dul nag ngant am nga xam ne gisoo fukki miskin masal gis nga juróom nga nga jël jox leen ku nekk duubulu la nga waroon jox kenn ñett na ko noonu muy fukki miskin ku ne nga leel ko su dee ne loolu it am nga choix ci leel ko wala wodd ko mi ngi noonu wadd googee bokk na la ci digg doomu li borom xam-xam yi wax nga sol ko nga jox ko lu mën a jullee nga jox ko lu mën a jullee donte ne ne am na ñoo xam ne dañuy wadd daal la yàlla wax soo joxoon kee tubéy jox kee xamisa jox kee nangam ala kulli xaal mi nga noonu waaye la gën a digg doomu mooy nga jox ko lu mën a jullee su dee ne choix it am nga ko muy goreel jaam ñett yi lu la ci neex def heure boo waatee ci yàlla ne dinaa def nangam la nga ne woon danaa ko def nga yëg ne bañ koo def moo gën ñett yi lu la ci neex kafaara heure boo waatee ne du ma defe ci nangam nga dem ba jëmmi jamono yëg ne lii kat def ko moo gën bañ koo def su boobaa ñett yi loo ci def baax na soo amul nag nga doog a woor ñetti fan gis ngeen soo amul nag nga doog a woor ñetti fan ca ñetti fan yooyu it lu neex nga koy woore lu nekk loo xam ne danga koy tegale suñu borom yàlla subhanahu wa taala mu ne lii mooy far la nga xam ne moom ngeen tuddoon turu yàlla ne du ngeen ko def wala la ngeen tudd turu yàlla ne dinaa ko def heure boo ko bëggee changer ñett yi dañ ci def benn soo amul nga daal di woor donte ne mbokk woo waat ci lislaam xamuñu ko lu dul waat ci yàlla abdullah ibnu omar nee na ma waat ci yàlla fekk damay fen moo ma gënal waat ci leneen lu dul yàlla ki waat ci yàlla te day fen def na ci bàkkaar yi gën a garaaw ci bàkkaar yi waxuma def na bàkkaar bu garaaw de dama ne def na bàkkaar bi gën a garaaw ci bàkkaar yi moom la ñu tuddee yaminul xamuus borom xam-xam yi ne xamuus xamasa mooy li nga nuural dañ ne waat la goo xam ne fokk dana la dugal sawara te mbokk suñu mbokk commerçant yi xoolal rek billahi wallahi taala yi li ma ko jëndee ëpp na loolu suñu mbokk ouvrier yi billahi wallahi taala yi bu samedi dinaa ko indi sama ñeneen waat ci yàlla fekk da ngay fen ci bakkaar yi gën a garaaw la bokk waaye li muy bon bon bon bon nag moo gën wàcc leneen lu dul yàlla ndax ci wàcc leneen lu dul yàlla moom daa bokkaale te bokk bokkaale bi gën a tuuti moo gën a garaaw bakkaar bi gën a màgg loolu ngeen bàyyi ko xel bu baax loolu moo tax ba jullit du waat lu dul ci yàlla malheureusement nag mbokk dem nañ ba jamono waat ci yàlla xewi am na gox yu bëri soo fay waatal nit tant que waxoo ko barke cheikh nangam gëmu la am na foo xam ne boo fa demee li gars yi nett rek ñu ne samba pël daa yoru nagam sëñ càam ne na ko léegi nag bi dencal ma ko bu ko jaay kenn bu subaan naa ñëw jël si ko mu ne ko i waatal mu ne ko billaahi wallaay mu ne ko ay déedéet mu ne ko waay billaahi wallaay dara mu ne ko de wakal bi kew rek yaa ngi dégg ba mu ne ko barke sëñ diw mu ne ko baax na kon dinaa la kaar ala kulli xaal mbokk loolu nit ñi dem nañ ba jàpp ne waat ci leneen waat ci yàlla moom loolu moom ñiy faral ñoo ko def waaye soo bëggee waat dëgg dëgg dëgg am na ko wax ñi ñoo xam ne ni nga leen xamee tant que waatu ñu ci diw xamal ne li ñuy wax moom dañuy caaxaan rek gis ngeen ala kulli xaal suñu borom yàlla subhanahu wa taala mu ne waxfazu aymanakum wattu leen seeni waat mbokk jullit boo waatee ci yàlla xamal ne turu yàlla nga dimmini ko te mooy maa ngi seedaloo yàlla ne lii duma ko def maa ngi seedaloo yàlla ne nii dina ko def borom bi mën a sàmmal loolu lenn na dong may war a tax nga nga dellu gannaaw mooy nga gis na la ma ne woon duma ko def def ko moo gën wala la nga ne woon dinaa ko def bàyyi ko moo gën su boobaa it bala nga koo def wala nga koy bàyyi suñu borom mu ne kafaaraal ci ñeenti yi ñett yi bu la ci neex def soo amul nga doog indi ñeenteel bi te mooy woor ñetteelu ñetteel bi borom bi subhanahu wa taala nag mu ne nii laa leen di leerale samay aaya ngir ngeen sant yàlla te it alhamdulillah niñ ko waxee ci début bi ak a bëri ko waatoon ne nangam dootuma ko defeti ba mu demee ba jimmi jamono gis na kay erreur la defoon jamono ba muy waat kon alhamdulillah bi ko yàlla mayee bunt bu mu mën a génne su ko defee mu kaffaara daal di dellu ci la nga xam ne moom la waatoon donc kon mi ngi noonu ñu ngi ñaan suñu borom yàlla subhanahu wa taala yal nañu yàlla sàmmal suñu lammiñ sàmmal ñu suñuy jëf may ñu aafiya fi dunya wal axira wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ah waaw mu ne waaw qisisiin qisisiin mooy borom xam-xam yu mag yi ya mooy ñi nga xam ne dañoo jàng xam-xam ba géeju ca ruhbaan mooy ñu dëddu àdduna ya di nga xam ne dañoo dëddu àdduna ñoom ngërëmal yàlla rek lañ doon sàkku ñooñu la borom bi subhanahu wa taala ne ñoom duñu nekk di réy réylu ca it loolu la yàlla wax ci jullit ñi innama yaxsha allaha min ibadihi al ulama ñi ragal yàlla dëgg dëgg ci borom xam ci ci ci nit ñi mooy borom xam-xam yu mag yi ñooñu ñooy al qissisiin wallahu aalam naam naam naam waaw koo xam ne nee na dafa toog tisbaar am lekk bi génn ci bakkan yi ah deret di génn ci bakkan yi déedéet deret bu génn ci bakkan mbokk loolu yàqul koor bu dee ne deret bi dafa génn ci bakkan bi noonu rek ci amul ci loo xam ne daf ko jëlaat di ko wannaat xanaa dafa génn noonu rek muy bori bi kese loolu yàqul kooram wallahu aalam naam naam waaleykum salaam naam waaw dañ ko doon tradural alxuraan ji mooy ñoom seen lakk dañu am seen buur yi buur bu nekk lañ koy wax dañ ko koy traduirel loolu mooy la nga xamante ne ni moom lañ ci gën a jublu ndax même Najashi bu déggoon arab it labbe yi ko wëroon yëpp ak niñ ko nettali ci histoire ñoom ñëpp andi di jooy mooy dañ leen doon xa traduirel la nga xam ne nii moom la Jaafar doon wax mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam naam waaw loolu mbokk mooy internet bi rek internet moom mooy internet rek yooyu mbokk ñun suñu problème du problème ay muus ak i xaj suñu problème mooy aaya yi borom bi ku ne xam ne ne am nañu yor seen muus lu ne la ñuy def ak moom tubaab bi nagam fas la ñuy tàggat ba naan ko tëddal mu tëdd jógal mu jóg defal naa nga waxuma ay muus loolee kon loolu du dara loolu ngeen gis internet bi loolu mbokk jullit loolu du dara yooyu daal vraiment benn kawtif nekku ci mi nga noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam naam borom borom xam-xam yi dañ naan képp koo xam ne nii amoo dara ñu jox la ñaari muuru koor benn bi mën nga koo lekk tey ba si des danga koo war a joxe loolu mi ngi noonu képp koo xam ne am nga loo lekk tey la des danga ko war a génne muuru koor wallahu subhanahu wa taala alam te bu booy da nga am muuru koor naam ala kulli xaal kon waa bismillah ñu dañ ci mbokk bi ay parfum ak i cuuraay yooyu yëpp du yàqu koor waaw mooy parfum rek parfum yooyu yëpp du yàqu koor parfum cuuraay yëpp du yàqu koor mooy xet bi ci boppam du yàqu koor bokk waaw pikiir pikiir du yàqu koor li yàqu koor mooy perfusion nga naan perfusion yi nga xam ne da lay dolli deret wala mu lay dolli ak lekk mais bu dee jëmmi pikiir kese pikiir nekkul lu yàqu koor waaw mi nga noonu wallahu subhanahu wa taala alam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain